ñun nag ay ndaw Macky Sall dañuy taxaw en tant que bouclier nangu nañu attaque am venant de l' opposition mais mënatuñu nangu ñekk ñekk suñu biir parti di attaque surtout encore ñoo xamante ne ay membre du secrétaire exécutif la chance boobu ñu am ñun ñi ñun ñi di ay ndaw jege Macky Sall ñun amuñu ko donc je pense que tey wax yooyu war nañ ko xoolaat surtout encore au niveau de l' nationale tey institution la boo xam ne dañ a aussi seggaat lu ñuy wax parce que dañu xam ne adduna bi yëpp moo te ndaw ñi aussi dañ leen seetaan la euh, moo xew ci réew mi donc je pense que tey kàddu dañ koy ñaawlu te di wax ne tey à partir désormais comme encore une fois muy boor poli muy boor politique bu ne muy opposition ak suñu biir képp ku taxaw di jàmmal ak le président de la république ñun ay ndaw président dañuy taxaw tontu la am nañ ay am nañ ay argument yoo xamante ne tey euh, mën nañ ko wax wax te termine lu ma ci gën a jaaxal ñoom di wax amul kenn ku ci wax intérêt sénégalais ñoom ñëpp di wax amul kenn ku ci wax le parti amul kenn ku ci nekk yaa ngi wax man man man te pourtant am na ay ndaw yoo xam euh, naa ne amuñu dara am na ay ndaw yoo xam ne tey ñu mel ni ñun tey ci diaspora bi lañ nekkoon di liggéey nekkoon ay chef d' entreprise dañoo renoncer yooyu yëpp duggoon ci combat bi ànd ak président te boobu engagement boobu buñ koy door président digguñu woon poste président digguñu

nañu xoolaat ci lu ñu wax xam ne sénégalais ñu ngi seetaan parce que amono teranga bo xamné xam dayo mais comme tay mandat moy jeex moy tirer à sa fin donc je pense que c'est une sorte de chantage et les chantages nous les accepterons pas de tout bord que ce soit l'opposition que ce soit en interne te tey di wax né di lancer un appel aussi au président de la République di wax né tay nous sommes plus que jamais déterminés tay accompagner côté aussi tamit ci liggéey bu mu nek moy soukali Sénégal le programme 535 3 ko waxé tay nu def ba tay euh, euh, améliorer la condition de vie des Sénégalais ñun ci loolu la donc ñu waxoon Moustapha chantage ça ne passera pas te na xamné musta gagner élection au contraire si mu jógee gagné Touba, Touba ñun suñu élection Touba parce que Touba nous nous avons euh, cette année élection 2019 nous avons gagné 30 000 voix de plus à l'élection. C'est aussi il faut ñu wax sur les 16 communes nous avons gagné tous les 14 communes dans le département de Mbacké donc c'est important aussi il faut ñu wax parce que donc ah, on a une avance significative le reste nous gis nañ ko nous na Touba d'Alangabou. Dalangaabu dal nga bu tamit defet la fa jëlee mu jóge fofu immigré ñëwaat comment on appelle euh, fils au niveau de Dakar dem Padoua suba mu ngi yof donc je pense que tay un politicien migratoire suñu ko gis.